ñu ne euh, kii ak euh, ki fi jóge benn lañu y a des gens qui le mm-hmm. mais après euh, euh, c'est-à-dire xam nga tuuma mm-hmm. tuuma moo yomb en fait mm-hmm. tuuma moo yomb kii di door a toog mën a goo koo daanaka reprocher dara parce que defe ko fi dara lu war a mën a tax s'il va dans cette démarche là na ko leer ne la daloon Cheikh moo koy dal moom jeg saa ah yow da yaakaar ne gouvernement bi dañu nekk ci ay foo ak i tandus. ba ñu ko tabbee de dañu ne 6 mooy mais bu ñu ne 6 mooy 9 et dans sa démarche waneegul ne 6 mooy 9 mënaguñ ko incriminer ci loolu. sa c'est-à-dire il va falloir que moom mu ko commettre benn faux pas. wala mu def une mauvaise gestion. wala boog mu am ci comportement am lu nit di lu ci doxalinam. bu boobaa dañu koy wàccee nàkk ni ñu wàccee Cheikh coow li mooy aujourd'hui sa à dire pourquoi c'est maintenant que sur la sur le sur l'espace public. la ñuy waxtaanee yenn conflits yi nga xamante ne soit c'est des conflits d'intérêt personnel ou des conflits yu concernés askan wi dans tous les cas tu sais que ça soit Sénélec so euh, SONES toutes les entreprises sénégalaises yi fi ne tous les ministères toutes les directions dañ leen war a saytu yow tu crois que quand Ousmane Sonko se réveille un matin ne la dëkk bi dama ko fekk en ruine pour yow wàllu koppar kese la hmm. yow xanaa yëgoo ne Pape si Cissé dëkk bi jikko jikko yi ñoo njëkk yàqu jikko hmm. ndax la lay def loolu bon ci jikko lay tàmbali di hmm. donc dafa am loo xamante ne su baaxul muy baas bi yax ba bu dammee ca mbanjaxaan ba pour nga bëgg koo jubbanti da ngay am problème et dans ce pays là y a beaucoup de choses à régler. yàqute jikko yooyu ci kilifa yi dénk ya tàmbali non man les conflits personnels j'aime ça parce que dama bëgg kaa man dama bëgg détail <laughs> le diable nag il est dans le détail la gën ñaaw sax nag ci ñoom non c'est-à-dire man je m'assois je mets mes coquettes escarpins Louboutin je suis oui le suivant mais non donc je suis là même si Versace est dedans. waaye. li ma la bëgg expliquer mooy ne nit ñi dañu war a xam. nu wànnent di mujjee ki gëtëm. dëgg la c'est le moment nag sérieusement qu'on ouvre les enquêtes qu'il faut dans ce pays. gis nga le travail d'audit qui est en train d'être fait wallahi azim bu résultat yi génnee di nga jommi nag. warta mun a bàyyi Sénélec. Sénélec ak ñëpp ci bokk yam Sénélec moom dèjà allah kulli yàlla dama leen guuxal allah yàlla yàlla di leen defal jàmm rek mooy tax ma may leen woyofal ah, woyofal bu ñu xoolee seen loolu dinañu tant d'autres choses oui why not pourquoi pas mhm. mais c'est-à-dire que xam nga c'est-à-dire le fait que aujourd'hui nga nekk sax DG ñu lay tuumaal yenn yi wala nga nekk PCA mhm. nga am ngoone yenn opportunité yi mhm. mm. tu sais dans les pays normaux même bu ñu la joxee yenn responsabilité yi waroo mën a nekk rek xëy du jour au lendemain rek saa waay nga yor xaalis bu dul jeex foo ko jëlee frère foo ko jëlee ci dëkk bu mel ni Sénégal gi ak ndóol gu metti gi fi ne yow nga bëgg jékki-jékki rek saa waay takk foo ko jële duñ la ko laaj jamono jii nag ci nguur gi ñu ne nii nguuru président Diomaye bii ak <laughs> premier ministre Ousmane Sonko man de barki Mouhamed bu du ma doon woo di ma fay lu dul jeex ci àdduna dina leen ne merci jërëjëf parce que danoo foowul caaxaanunu d'ailleurs booy xool et fu mu ne nii rien ne marche parce que tout a été bloqué li tax ñu bloqué ko parce que dañu nekk ci liggéeyub saytu te saytu boobu war ta bàyyi kenn bu ci amee nag ñu ci yàkkamti ba gaaw a fësal ci kanamu ay micro ay coow yu leen concerné ñoom wala ñu concerné benn nit c'est-à-dire ñu ngi ñuy may benn longueur d'avance sur yenn sujets yi nga xam ne ñun dañoo bëgg xam sax justement lu mu demee ah. alors que les audits soient faits que les enquêtes soient bouclées que ñu xam kii et kii dans ce pays kan yor lan ak kan fan la jógee ba mën a am tab ci loo xamante ne jàpp nañu ne xëy na ci wàllu koom-koom wala ci wàllu am-am dafa gaaw lool ci diir yi ñu fi toogee wayu laa bokk xanaa c'est des gens qui ont plusieurs métiers dans le monde entier wala dañuy luxus Mm. wala fu nu ko jële j'attends de voir mais vraiment gëm naa ni euh, li Ousmane ko wax bës bu ñu toogee def euh, euh, saytu bi def le point avec les Sénégalais comme Pape àll da leen waxoon ne leen wax leen dëgg askan wi bës bu askan wi xamee état bi ci yan loxo lañu ko jële loxo dina dargé lan lañu fi fekk boobaa ñu woowi sëñ Maaraam def ci ñaan ngoone fi booba <laughs> nañu may nopp li mu wax sëñ li jëmale ko ci ki fi jiite woon Sénélec ak aussi Samuel Sarr yamu ca ñoom ñëpp raaxaale na leen ci maa léegi ñoom dañuy leen di xaar ñu tontu duñ ci yem ci loolu dañuy xaar ki nga xam ne mooy le maître des poursuites le procureur de la république mu autosaisir wu na mu ko defee woon ci yeneen i dossier xam nga acculé c'est pas pour la première fois muy def accusation yu mel nii le 24 juin gi la ñu génn dafa am lu mu bindoon wax ci lu jëm ci différent am ak Sénélec concernant lu jëm ci euh, marché des fournitures nationales d'électricité yi mu jàpp dafa am nébuleuse boo xam ne nekk na ci ba tuddoon ci Pape bu Bouteille mhm. kon ñoom ñaar seen ay mbir euh, euh, mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi bëgg a yàgg mhm. donc ci niveau régime bi itam ñëw mu indiwaat ay accusations yu gën a graaw bay wax lu jëm ci surfacturation surfacturation ku ñu ko wax ça veut dire que ne am na lu ñu la joxoon lu jëm ci marché nga am loo ci toftal loo xam da nga ko def sa poche mhm. léegi nag yow mi ñu tuumaal da ngay génn leeral muy benn ñaar ba ca topp mooy le procureur ci wax na daf ko daf leen a war a woo ki wax. parce que boo waxee dafa wax sur la base de preuves moom mi wax moo war a apporter ay preuves yu mu tekk ci kaw ka ñu ko wax. mais ki ñu ko wax ci kaw mi tam da doon liggéeyal kooku itam na ñëw. ñu saytu la ñu ko joxoon lan la ci def ak lan moo ci euh, lan ban finition la ci am. parce que tam mun ñoo toog tey dégg diw dénkoon na ma 2 milliards diw dénk na ma 500000 kii def na surfacturation ki def na lii kii def na lii kii def na lii barki Dembo Ndiaye euh, premier ministre du Sénégal ne dafa ñëw fekk ci Sénégal mu nekk en rune ba ngay wax kii naan lan mooy grava xaw ma lan loo tas ba mun a tasat ci dëkk boo xam danga nga waroon ñëw nekk dans la continuité mhm. ñoo fekk lu ñu defar ba pare nga continuer ko nara ñëwaat nag di tabax reprendre à zéro ñuy wax ay milliards ay surfacturation fekkee dañoo nekk ci état de droit ñi dañ leen war a convoqué ci nu mu gën a gaawee ñu andi ay leeral muy akkile mi wax muy ñañ ci tudd képp ku ci kuñ ci woo ñu xool sa degré de responsabilité fan la toll. Mhm. parce que tam ñu toll rek chaque jour nit tuumalaate am na comme ni ko waxee tuuma dafa metti te mënuñu koo tuumaal nga ñëw toog ne defuma ko. Mhm. waaye dafa am ku leen di àtte am koo xam ne moo lay setal. Mhm. tey bu ñu leen woowee ku ci nekk document ba nga am ñu andi ko. nga ne kii ma tuumaal lii. lii yoon mooy xam nga la ñu àtte bu deekee dafa amoon lu mu teg sa kaw te du dëgg yoon daan ko beneen bés wala beneen fan buy ñëw ku la nar a tuumaal dana xam ne kii ma tuumaaloon kat ma demee wax lu dëgg lii ma ma ciy fekk parce que tollatuñu foo xam dangay naan sa café toog jàkkaarloog sa tele rek toog lu la neex nga wax képp ku dem bay wax da ngay am sa responsabilité engagement la ngay wax nag yow la concerné na nga fexe buñ la oowee nga wax ko lii nag procureur lañ ciy interpellé du Ousmane Sonko ndax moom du mooy àtte du président Diomaye ndax du mooy tëje le maître des poursuites mooy le procureur de la république. moom mooy toog xool da daan toog xool ku ko neex nga wax ci plateau bi ñu wàcc ñu la kaay foo jëm nga ne dégg. Mm-hmm. lii moo gën a garaaw lañu daan toppee nit ñi nañu ko lijjanti. te na mu gën a gaawee gën a baax. te kuy dem bul yóbbaale sa géwél. Mm-hmm. sëñ Mara te pour revenir ci ci ci géwél boobu def na passation de service démb waaye ki mu ko defal moom euh, euh, Jéegi Diop du ka mu remplacer ka assuré intérim bi kooku la defal passation de service. muy information. sëñ Mara comme. comme yéen moom da di wax ak ñëpp. bu ñàkk ci li ñuy wax nii nga xam ci dara. waa xam nga réew mi moom. li waa ji di wax léeg-léeg dafay dafay dafay xaw a dafa xat nag tuuti. waaw ndax léeg-léeg nit di nettale histoire bu bu waaye man dafa am tuuti lu ma yàlla xaw a nattoo. mooy du bëgg di ñu ngi waxtaan ak ñu bari. waaye duma bëgg lu ma for rek ndaw andi ko ci penc mi. donte lu yitteel penc mi. donte waa léeg-léeg mën naa yitteel penc mi nga wax ko it man nga cee lor penc mi. nga wax ko te wax bi jotut te wax bi jotut. d'accord foofu laa waxee. léeg-léeg it li ngeen di wax yoo xam ne eh, dangeen koy indi ci seen plateau bi fekk man waaw fekk dañ ci loolu nag du dara ndax eh, ñun niñ xaw a toogee. dafa am nit ñu ñuy gis waaw fi mu ne sama téléphone tey yow bu ma la ko dénkoon trente minutes du ko sax mat danga ma koy delloo <laughs> waaw te noonu mën na kii yéen mën na laa kii kii tëddu ci réew mi ci bitim réew ñooñu nag léeg-léegi da nga ci am nit ñoo xam ne dañ lay jox yëf ay bagages waaw léeg-léeg nga jàpp ci lu dëgër waaye du luñ la jox rek tamit lépp dëgg la ah dañ ne dañ toll foo xam ne nan wax dëgg <laughs> na leer. <laughs> waaw jubal jubbanti léeg-léeg nga gis kuy leeral li <laughs> fi wax na ko. waaw nee na on est obligé ñu wax waa réew mi liñ